man xam naa na koo xam ne takk na jabar dem lune de miel ni day def affaire de kii yooyu fo rek fo parce que dafa bëri xaalis mhm. jël benn picc jox ko jabar ji yor benn picc ci guddi gi ñu nekk yow yàgg naa dañuy nekk ba ci yàgg ko ana sa picc ndaw si ni picc ngi nii yow ñu nekkaat ci nii ne xoolal nekk ci nekk ci ba yàgg mu ni ko eh, eh, bébé ana sa picc bébé bi ni ko xoolal sama picc ngi nii yow tamit ana sa picc mu ñu dem ba affaire yi commencé yéeg. ñu ne ca di ko amoon. ayi layi la la jëkkër jëkkër jàng di ko. bébé bébé ana sa tupputu. waa ji ni ko ah sama tupputoo ngi nii yow tamit ana sa tupputu. fa ñu toll. baax na non mbay mbay. di nga toll koo xam ne. loo fa yor loo fa yor rek ànd ak sa sago. loo fa yor ànd ak sa sago.